internet yi safoo seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal la tënkub xibaar tey mardi di 11 ñu tamale ko xibaaru biir réew mi gannaaw ab xaar bu yàgg nag ak it euh, ñaxtu yi nga xam ne ñii di opposition bi ñu ngi ko doon amal ak société civile bi président Macky Sall jël na décret numéro 2021 562 bu 10 mai 2021 euh, décret buy fixé lii di date bi nga xam ne kon ci lañ war a amal lii di élection locale yi date ba nag jàpp nañ ko muy dimanche 23 janvier 2022 gouvernement bu Sénégal ànd kook direction générale du fonds de financement de la formation professionnelle et technique du 3FPT ñoom nag si signé nañ bésub démb ak kii di bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest ab accord de partenariat boo xam ne kon day permettre ñu doxal lii di programme d'accélération du modèle d'insertion des jeunes agripreneurs boobule partenariat nag kon dina permettre ñu former lu toll ci quinze mille quatre cent quatre quinze mille huit cent quarante jeunes ci filière yi ñuy wax avicole horticole piscicole wante itam élevage ba léegi bu ñu sukkandikoo ci directrice bu 3FPT boobule partenariat dina permettre ñu créer lu toll ci cinq mille entreprises. Pape Xon Ndiaye nekk journaliste chroniqueur judiciaire ci groupe Walfadjri moom nag fi mu nekk nii dañ ko placé en garde à gannaaw bi nga xamee ne kon ab nit daal moo ko porté plainte fële ca sûreté urbaine ñu ne plainte bi nag ki nga xam ne moo ko porté plainte nag moom dafa ne moom dafa joxoon koppar euh, journaliste bii di Pape Ndiaye ngir kon Pape Ndiaye mën a dugal liste mën a dugal turu benn mbokkam ci liste bi nga xam ne kon moom mooy ñi nga xam ne la président Macky Sall war a gracier bu fekkee tolloo jàngoro coronavirus nag euh, bésub tey ministère de la santé annoncé na 15 nouveaux cas 5 yi di ay cas contact yi di ay cas communautaire ba léegi am na 18 euh, personnes yoo xam ne ñoom wér nañ wante am na 13 cas grave yoo xam ne ñu ngi réanimation bésub démb nag benn nit ñàkkul bakkanam te li ko bi sabab jàngoroy coronavirus. bu fi jàng duggee bésub tey nag Sénégal compté na toll ci 40 729 cas 39 428 jot nañ see wér. 1120 ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu nekk ni am na 180 patients yoo xam ne ñu ngi sous traitement bu dee ci wàllum vaccination bi nag lu toll ci 428 147 personnes jot nañ leen ñàkk xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg euh, lii di déclaration bu Nations Unies nga xam ne daal ñoom ñi ngi ñaawlu mbir mi nga xam ne euh, moo am fële ca Jérusalem nga xam ne soldaaru israélien daal dañuy def ay métit ak xoqatal jëmale ko ci ay palestiniens Euh, ñoom ñooñ nag di waa Nations Unies secrétaire général porte-parole secrétaire général bi di Antonio Guterres ñoom daal nee nañ euh, ñii di waa Israël daal kon dañoo war a dakkal li ñuy def wante itam dañoo war a respecter lii di liberté. lii di droit à la liberté de la réunion pacifique nee dañ ko war a respecté ba léegi ñoom waa Nations Unies daal ñu ngi naan bépp dirigeant ak bépp responsable daal boo xam ne ci àdduna nga nekk war nga agir ngir daal mbir moomule dakk fële ca Russie nag ci dëkk bu ñuy wax Kazan foofu ci ab ci ab école daal kon la ab ci ab école kon la amal ab attaque ba attaque ba sax def lu toll kon ci lu toll ci onze personnes yoo xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan ab ab ab nit daal kon moo fa soox kon ay balu fetel ci ville boobu ñuy wax ville Kazan ci ab école bu nekkoon ci ville Kazan ba jot fa lu toll ci. onze personnes bu sukkandikoo ci agence de presse euh, RIA am na nag ab euh, nit boo xam ne ab suspect la kon ku am dix-neuf ans daal nekk suspect kooku jot nañ koo teg loxo wante nag xamaguñu woon li waral boobule attaque ministre des affaires étrangères bu Turquie moom nag euh, bésub tey bii kon ñu ngi koy xaar fële ca Riyad ci Arabie Saoudite gannaaw bi nga xam ne nag toog nañ ñeenti at boo xam ne lii di relation yu kon Arabie Saoudite ak euh, yii di relation kon bu Arabie Saoudite ak euh, kii di Turquie daal taxuloon mu demee noonu seen relation sax moom mu ngi commencé woon yàqu gannaaw gannaaw bi nga xamee ne kon lii di printemps arabe mouvement boobu ñu naan printemps arabe amoon na wante itam assassinat bu journaliste Jamal gi ci consulat Arabie Saoudite bu Istanbul en octobre ci octobre 2018 loolu tam gënoon na xëjëmal relation ñii di Turquie ak Arabie Saoudite dañ ko jeexalee euh, génnuk àdduna euh, kii di Raoul Vora nekkoon nag euh, benn célèbre comédien ak it blogueur euh, wala boog nekkoon célèbre acteur acteur la woon kon ab acteur la wante it nekk benn blogueur indien boo xam ne siiwoon na lool moom nag mu ngi génn àdduna gannaaw bi nga xam ne am na 35 ans mu ngi génnee àdduna ci benn hôpital foofule ca New Delhi di capitalu Inde moom nag kon mu ngi génn àdduna gannaaw bi nga xam ne hospitalisé woon nañ ko. gannaaw bi mu contracté kon lii di coronavirus leen ñun tey ci ay xibaar rafet seen taw leen jox daje ëllëg jaa jëf.